waxuma neex neex baax baax bi sa waaye ci la ñuy judd ñu te neex na yàlla mu génnee ñu ci suuf mhm. neexoon na ko ñu wàcc ñu taw mhm. mais daf ko organiser ba ñun ci sexe la ñuy jaar ma jox ko gëdd fekk ko ci science dem nag ba xam nga xam-xam ñett la li nga dégg li nga gis ak li nga ñam te boo leen ko ne neex na tu vois mais lan la ci réellement mënoo ko expliquer bi ma ñemee sexe dëgg-dëgg laa xam dëgg-dëgg lii nag na jox cër ndax mu neex te ma ko neex neex bu dekkoon ci man donc ci laa ko jot gën gëstu ko ci science. gëstu ko ci aada nañ taxaw nañ taxaw ci science ci na ban anam nga ko gëstoo ci science. xam nga tey recherche am na jàng am na tey boo bëggee def recherche mën nga am mën nga am pedigree ku am PhD mooy docteur ci recherche rek mën nga ko donc tey ci science da ngay dem. ngay fay ay cours six dollars huit dollars neuf dollars ba cinquante ñu lay wan nan nga mën contrôler sa bopp ba doo gaaw a daanu yan lekk moo lay xiirtal ci gaaw a daanu gaaw a daanu réellement malfonction bi fan la nekk lan moo waral quoi mais nan nga mën a joxe jigéen orgasme alors alors boo taxawee ci science man damay bëgg tey boo ma newee je suis un sexologue nga indil ma ay diplôme yu may wan ni jàng nga sexe euh, am nga ci xam-xam am nga ci lijaasa voilà pour boobu laa doon wër mais yow man diplôme nga am bu mën a firndeel ni que yow tu es un sexologue. xam nga dafa am ñaari ñaar ñaari diplôme Sénégal benn bi la ñu benn bi kenn valorisé wu am loo xam ne moo bi diplôme te kenn valorisé ko. muy lan. benn diplôme bi mooy institution yi ñoo koy joxe mu mel ni tey boo génnoon ICAR. jëndal am nga master. oui. tu vois beneen bi daara yaa koy joxe. ak euh, ñiy faj wàllu cosaan respecté wuñ ko. Mhm. mais ñoom itam bu ñu dajaloo ba xam ne yow sa xam-xam màcc na ci lii dañ lay jox benn kayit. Mhm. amee naa ko Gàmbi dama dëkk. mais am na ci boo xam ne ñun fii jàngalekat bi gën a mag expérience la suñu yaay dañuy sëy ba jeexal matière sëy la amuñ diplôme sëy. nga jàng ba génn mais yow boo gañee contrat mason bu koy gañee bu koy liggéey amul diplôme. Ah, ok. bi du am diplôme. déedéet yow mi gañee contrat bi da ngay am diplôme xam naa li ma lay wax. waaw maçon bi mooy liggéey ku nekk artiste bay dëgg xew yi gën a mag ci àddina te amul lijaasa culturel buy wane na mën na sama c'est ça. li ngay faj ni mosoo ci am problème. non fajuma man commerçant la damay jaay man damay jënd garab yi dëgëral bu ñu certifié jaay ko. mais su ma xam-xam moom consultation laa ciy def te gratuitement laa mën na ñëw ci man comme jigéen du may tooy ma expliquer la ba ñëwaat ci playlist bi un peu euh, jox ñu sa deuxième chanson préférée. Euh, Céline Dion That's the way it should be. d'accord That's the way it is. alors dañu dem seetaan ah juste un extrait de la chanson de Céline Dion léegi-léegi ñu dikkaat ci plateau bi.